Euh, déjà naka ngeen buggee ligue, ak waa Orange. waaw ni ñuy liggéey ak waa Orange vraiment nekk na ligue bi nga xamante ne ni liggéey bu bu bu enrichissant la ci côté yëpp parce que il y a une mutualité qui se trouve vraiment parce que euh, tout le monde sait que li ci ëpp ci ay communication wala événement yi nga xamante Orange da koy def lay lëkkaloo ak benn agence bu mag bu ñuy wax caractère donc caractère quelque part peut-être elle ne déployait pas de certaines ressources humaines. donc elle a fait appel à une autre agence et cette agence s'appelle Armada donc Armada fait def casting Il ñu y avait pas mal d'artistes macha allah yu siiw ñu xam Sénégal yi nga fait casting bi mais par la grâce de Dieu du ma du ni sunu mën non non c'est par la grâce de Dieu ci lañ ma opté opté sama yeneen morom c'est pas question ne ñoo fa gënoon xarañ mais amana peut-être ñom liñu ñu soxla woon donc yaakar lañu amoon ci ñun te que machallah bo boobu ba léegi ñoo ngi gor góorgóorlu et ñaan yalla vraiment yaakar gi ñu am ci ñun machallah ñu bañ leen décevoir et que objectif yi ñu fi teg rek ñu atteindre ko inshallah allahu rabbi. Euh, lan moo tax euh, publicité Orange Money bi ngeen koy def ay voilà c'est une question pertinente parce que euh, pour la publicité voilà produit bon monte donne, def communication il faut nga euh, il faut il faut maîtriser ce que tu fais maîtrise moi d'abord il faut produit bi produit là la il faut nga xam axe il faut nga thème il faut nga slogan par exemple acteur, yi nga jouer aussi li ci am solo ba am solo public ban cible nga au Sénégal tout le monde sait que le théâtre c'est un atout majeur pour une communication sociale et que théâtre autrefois la publicité autrement c'était des publicités standards c'est-à-dire da ngay ñew da ngay wax information bi mais Sénégal comme nous la ko sénégalais la quasi totalité des sénégalais aiment le théâtre donc gayné Orange ak colloque ak ses partenaires ne pourquoi pas ne pas faire le théâtre publicitaire raison pour laquelle nous avons fait def concept théâtre publicité autrement dit publicité théâtrale et machallah allah ba ñu ko defee ba pour man euh, accroche amna, approche amna. Pour pour man message boo ou wala communication boo war def ak public bu mu donne doon nag que par exemple à la base ni société bi di dundee il y a yan a croyance et am aussi tamit y a un comportement wala ak y a donc sur ce gars vraiment ils ont été intelligents et ñu def le CCC une communication pour un changement de comportement parce que tey kenn un woon ni transfert d'argent, agence yi bëri na mais nag roy du pire il def a dañ koy nangu macha rabbi donc euh, touche bi nga xamante que indi nañ ko par rapport à la publicité sénégalaise Moi, le concept théâtre publicitaire et loolu bu koy wax c'est grâce à Orange à Orange Money à caractère à Armada mais aussi mais aussi plus particulièrement aux acteurs yi nga xamante ni tey parce que ñun nous ñu koy joué ñun ak sénégalais yu koy seetaan découvrir les mêmes informations donc quelque part yow balaa nga naan naam ne fa balaa ngay di nit mu sangu day fekk quelque part nga nekk fa moo donc bu koy c'est comme si quelque part sénégalais yi tamit dañu dem ba publicité Orange Money dañuy dem ba publicité mais autrement dañuy dem ba japp est-ce que du série est-ce que du théâtre tellement machallah il y a une équipe dynamique bi nga xamanteni et que dañuy faciliter du peut-être ñun nous au devant de la scène peut-être ñun nous ñuy euh, à l'écran mais vraiment il y a une équipe vraiment pro dynamique yi nga xamanteni ñoo nek suñu ginaaw bu ñu coaché vraiment duñu jappalé bu baaxa baaxa baax a vraiment mëna atteindre objectif yi ba nit ñi mëna gis différence yi. amin ya rabbi amin ya rabbi xam nga man ni lay ñaanal xam nga nak may ñaanal ñaanal ba weesuwul nga ne ma degg na xam nga degg na mom ak gis na bokul mais maa ngi sante yalla ma ngi sante yalla bu baax wax amin ya rabbi ma ngi sante yalla bu baax ma ngi sante yalla bu baax te ñi ñaan yalla nak vraiment affaire bi gëna jam kanam aussi changement ñu sentir ci côté yëpp ñu sentir moralement financièrement ak yenen ak yenen waaw on se plaint pas on se plaint pas mais amna li nga am ay manquement mais ñoo ngi sant bu baax a baax te ñaan nañ yalla inshallah rabbi avec la collaboration affaire yi ça va décanter et on aspire vraiment à de meilleurs euh, devenir incha ci def ko ay sketch wala da ngeen xalaat changer système indi beneen waaw ñun moom su nekk de la ñu séntu rek fu ne la ñuy génnee fu ne la ñuy génne bu ñuy def mbir ba ñëpp fi ñëw ci ñu bàyyee leen ko dem defi leneen mais yemuñu ci publicité kese yemuñu ci publicité kese peut-être daf ñoo dab ñun à la base on est des comédiens on est des acteurs de cinéma on est des conteurs donc ñun ay mën naa ay apprentis ci culture bi lañu donc publicité quelque part daf ñoo beaucoup dafa bokk mais nous sommes ay médiateurs lañu ay sentinelles vraiment donc à la base notre profession on est comédien on est acteur on est conteur donc c'est ça.